Basumo, ay metti na en mbere Basumo, basumo mbere ndeysaan combat nul ne peut combattre sans y laisser des plumes nul ne peut combattre sans y laisser des plumes man ak ku nekk dina am combat ne ci de guerre soit day nakari lool wala mu neex lool mais ñoo combat de ñoo là-dessus c'est très difficile gars mais il faut qu'on accepte nul ne peut combattre sans y laisser des plumes Ben, je sujet je une piège politique piège gars Voilà piège politique Demain nous avons plan d'étrangulation de la Casamance gars nous ñu la Casamance xoj Ray culture bi pêche Vous xam que barrage barrage yo xam sengor da ko fa fekk moy barrage bi ñu ngi ko defon ci embouchure bi pour fat xorom ci di dugg ci souf su di dugg ci ndox bu neex bi ndoxu fleuve bi jën bu nekk mo amul Casamance laaj len mag ñom sengor ak ñep Casamance lu ñom ñep daan defi jee pèlerinage mais lan la sengor def après la mort de Emile Badiane mu ne il faut dépeupler la Casamance il faut les amener vers l'exode manam les len pour ñu les leen naka la def ba xam nga ne anakaje der kese ça ñu fay bay biñ ko fa andi der der da fay ray souf di ndax dafa soxal fay créer ouverture ndax dafa six. der té légui mom moy suñu premier économie suis le premier économie pêche bi ba ci des yi jën yi daan am Casamance am fenn lu mu def barrage yi jën am Casamance amul fenn mais barrage yëpp te ndoxu géej ak ndoxu des jën il bokkuñu a des bu naanee ndoxu day ci lolu lañuy ñuy dem bu di piéger doomu Casamance ben par ben di len daaneel ben par ben damay ñew de ci lu leer bu 1923 wax naa leen ko samay vidéo 1923 passé Lamine Sané lañu ñu 1923 passé Lamine Sané lañu ñu te dañ ko accuser woon viol Lamine Sané njëkk ubbi ñi ñëpp parti politique mais dañ ko accusé woon viol après accusé ko diffamation fii à Paris fii doomu Casamance fii moo njëkk ubbi parti pour xeex pour xeex si pour l'Afrique mais Blaise Diagne ko rey nit ku ñuul dañ ko booleel comme moom mu rey ko toujours ma ñëw ci Senghor tay wourna fep mais histoire agen ak jamon gay ça n'existe pas de amul de histoire agen ak jamon je regrette mais ça n'existe pas serer peul le gën djégé ndekete maa ko liir séeréer pël gën djégé ko djola arñam gariñam ah su peul na arñam serer na gariñam kon légui djola lu mi wax gars yi joolaa bi njëkk jàpp esclave jaay ko chef de canton Mbay juuf ab séeréer moo ko jàpp jaay ko bi njëkk jàpp jaay ko comme esclave laa la wax de ab séeréer ko jàpp jaay ko du nom de Mbay Diouf tubaab moom heureusement lu muy def da koy bind ñu <laughs> ñoo dul bind parce que la yàlla fausseté séeréer jaamu joolaa yooyu séeréer kalu joolaa c'est archi again amul jàmbooñ amul c'est archi faux Senghor da ko créé ndax ratasement ñaari peuple yooyu li mu dagg Casamance lan li mu génnee Sokone ay Karang ak lépp Casamance li mu génnee Kaolack Casamance xam ne Sine Saloum c'était collé avec la Casamance. mais force du système ñëw dépeupler Casamance parce que Casamance seen fierté moo doon boo génnee bul lekk ci kër kenn. doomu joolaa bu daan génn Ziguinchor daaw lekk kër kenn daaw mosul jëlee ñam dëkku jàmbur dugal ko Ziguinchor mosul am léegi la léegi la loolu yëpp am loolu am doomu joolaa bëgg politique ñoom ñu bañ léegi nag tey doomu joolaa ñëwul pour politique nay leer de comme da ngeen naan joolaa ko yooyu Macky Sall ñoom APR nii lañ koy waxee damay déglu seen yenn ñi wax dañ naan joolaa direct soin logique mais doomu joolaa yi ngeen wax mais sonko il n'est pas joolaa pour être président de la république xam ne ngeen joolaa du nekk président léegi yéen gëmloo ngeen dëkk bépp ne sonko joolaa la mais sonko soose la te sonko pour lan pour lan mënul nekk président ngir yàlla wéet leen ak kilifa waxtaan ak moom ngeen xool lum lay tontu lillaay war a suuli wéet leen ak kilifa waxtaan ak moom ngeen xool lum leen di tontu. da naan waaye woofu ñooñu bokkuñu Sénégal waaye. billahi yéen Dakar yéen ñu bari sax noonu la ñuy waxee eh, ñun booy temps yëpp sax noonu la ñuy waxee waaye kenn grand yaa gën a xam ñi bokkuñu senegal waaye. aywa ñun ñëpp waaw majorité bokk nay leer. budul won tay Sonko ñew def preuve d'abnégation bi ak marisanya, Marius Sagna ñu bari dañuy fakk jóge Casamance rebel nga ye ñep on rebel du jola du serer du peul du Wolof rebel idéologie la rebellion c'est une idéologie idéologie la nekul affaire di jola comme fi ko gaay yi bëgg a yóbbu bi affaire di jola peul wolof ñun Sénégal luñuy wax ñun ñëpp digënté seen digënté seen borom luñ lay wax man alpulaar la luñ lay wax peul baaxul soo wolof ñu la wolof baaxul tam lo soo la peul du bokk yag yag dalay war pourtant man peul la ayo béy ko luñ lay wax ci mom moytu leen pourtant man béy nunku laa aywa peul ak béy ko ñoo jégué ben xeet bi la mu mel rek peul ak teug ben xeet bi la su ma bëggee dégg kii di tere sa doom nekk pël nga tere ko mu ànd ak tëgg yooyu yëpp amul Sénégal yooyu war waru fa mën a am te pourtant mu ngi fa am ni fuñ ko teg pourtant ñu nag tëgg <laughs> benn bi la soo wax ñu la kii day um kii eh alhamdulilah wërsëg ak dee bu ko yàlla joxoon waajur doom bu déggalul waajur faatu wërsëg ak dee bu ko yàlla joxoon yonent ku nekkul jullit dee ku nekkul catholique dee ku nekkul juif dee kon jullit du am ah Moussa yonente yàlla juif moom moo fi jiitu Jésus wërsëg ak dee bu ko yàlla joxoon ci loxoom aywa ñiy jiite seen église yu kii yi ñiy jiite synagogue yi seen rabbin yi Moussa jox leen wërsëgu dee non yàlla jox leen wërsëgu deew ak lii kon kan mooy tal nekk chrétien ndax boo leen gëmul ñu faat la boo leen gëmul doo am xaalis kon wërsëg a dee nekkul foofu te keroog bi may tëj maa ngi ci picc bee ngi naaw beneen picc di naaw picc bu ndaw bi di naaw jiitu gaa yi bañ mais looloo am gaa yi li ma leen waxoon yegg si na de boy town waaye booy zig bi nañ ko écarté isole nañ Sonko ni ñu demee sur le plan patriotisme politique doog a ñëw sur le plan li xew tey Sénégal mooy Barthélémy Dias ak lii gis naa ngeen gis ko idée wula mais idée bi ko xale yi jëlee tey nañ leen fa yóbbu maa ngi gis ñëpp di défendre discours bi naan noo lu ñuy wax seen normal lii waaw certes bart c'est le maire de Dakar war nañ ko recevoir mais tey bu doon Barth du waxtaan ak Macky Sall aisance boobu Macky waxeex Barth du ko ñemee wax ak moom newoon naa leen fi bart le 2 février ba le passé ci la ñàkkam nekk maire de Dakar tege ci loxo Macky sàll ci la mën a ñàkk nekk député tege ci loxo Macky Sall kon Barth dafay négocier par force. xale balaa nga ko yeewi da nga koy yee waxoon naa leen ko ma ne leen gaa yi gars yaa ngi négocier su suuf de kilifa yaa ngi waxtaan su suuf même Sonko am na ñu wax ak moom. am na booy yu ne woon damay yàqu combat bi léegi toll nañ si semaine bi yëpp ñenn ñaa ngi may feeñu grand oui nous sommes là sur le terrain non non non je ne plus sur le terrain avec vous je suis avec les vrais sur le terrain waaw je suis avec des sur le terrain. munu leen mën a leen lii moo xew yéen patriote ngeen ne ma lii mun te xew bu xewee on va réagir mën leen dara doo leen ko def mu xew defu leen dara te ngeen bëgg ñëw ne ma mënaat. maax yéen sur le terrain déedéet ñi ma desal sur le terrain yàlla laay yeggali sur le terrain je regrette man genre combattant boobu la kuy raf mbaa ngay xef dama lay teggi teg ñeneen man kuy raf ci xeex parce que foog ñu bàyyi ay dunk foog ñu bàyyi ay dunk ñii dinañ faat seen doom ñu dee ñii ñu tëj seen doom kaso ñii ñu violé sen doom ñoonu ñëpp kan la ci Sonko mën fay kan yenn patriote yi koo leen ci mën a fay kan kenn un combattant si tu ne laisses pas des plumes t'as pas de grade Macky Sall looloo faussé débat bi nii tey ñi doon politique ñëpp kenn amu si garaat muy xalifa Sall ak Jean Paul Diaz ñu tudd tey ak parce que dëkk ne su ma demee na sa baay t'as bien travaillé gars yi kot kot kot Macky Sall ci kaw ñi xamul politique dañoo fexe ba installé animosité politique or la politique problème de adversaire la comme Eumeu seen Balla Gaye comme Eumeu Sène Gris Bordeaux foofu la politique war a nekk mais Ousmane Sonko dafa dëggu tellement que bu ñu toogee waxu biir néeg sama kalaas gi naan ko Macky dëmb la man maay Barthélémy Dias toog naan ko yi dañuy def noonu Macky dëmb la Macky ni Sonko ni yëpp dara bu ñu génnee nañ ko wax mag yi bu ñu génnee war ko wax Macky ñëpp ruux ne ko waaw Sall ngaari lam toor mais Sonko moom li ñu réunion ci biir lay wax de day ñëw ne ko Macky mun naa mun ko dëmm nga. doomu Casamance noonu la mel man mi noonu laa mel dañuy réunion dara ne bu ñu demee dañ koy wax ministre bi wala dañ koy wax proviseur wala préfet ñu dem gars yi daw rees ma yekk ko fa ah. après dañ lay jàppee dof fekk doo dof tey Sonko tey bu dul woon tey li mu teel a dugal tey waxi projet tey bu Sonko commencé woon waxu boppam bi heure du yegg fii mais waxu projet la ñu andi sinon bii heure xoola yi dina naan wérul xeex la leen dugal ba fexe déruteñ mais heureusement dafa ñëw tegaluñu boppam dafa ñëw ne du man projet bi la xale yi na ko du yow du projet bi yéen ñaar ñëpp la te projet bi toll na foo xam ne pour duma bëgg dugg ci politique lu xóot li ñu def tey ñëpp di kaas ñi ay traître lañ ñi duñ traître traître lañ duñ traître déedéet déedéet gaay gaay dañuy waxtaan seen biir 2019 après premier tour 2000 deuxième tour non après premier tour bi ñu gagné une semaine après mais Macky Sall ak Idrissa Seck ñoo wàcc fii aéroport le Bourget yawit aéroport privé juste laa la wax di bi résultat yi génnee une semaine après Macky Sall ak sa Seck ñoo jël benn avion wàcc aéroport la Bourget. aywa leen te pour aller plus haut xam ngeen Mimi Touré dugg si na ci combat bi Mimi du ci wax ñëpp ñu ngi ma naan grand doo wax si Mimi saa nga wax ba pare tëb si Mimi tey tey laa leen ni Mimi xam ngeen pour lan du ci wax. dossier Adji Sarr bi kenn gënul xam Mimi lan moo nekk ci dossier bi ndax tout récemment bi muy dem élection législative yee nit naka la demee dajewul ak Sonko naan ko wax ñu li nekk ci dossier bi moom moment bi kenn gënu ko xam lu nekk ci dossier bi na jël ay responsabilités am def conférence de presse ne dossier bi amul c'est un faux dossier barki sëñ Tuubaa léegi ma jàppale Mimi dérangé wu ma pour jàppale ko ndax jigéen la ça ne dérange pas mais na génnee li mu xam si dossier Adji Sarr wax moom xam na ñaari PV yeeg ñaari certificat médical yeeg man gaa yooyu waxoon naa ko moo tax jour bi gars yi di liir gars yi liir naan bi mooy rapport médical bi man ne leen certes mais appel téléphonique am na ci Babacar dafa ne woon mu nangu ne am na ci bi ñoom Fulbert deewe mais dem leen ne am na nag lu xew ñaari rapport médical ñaari rapport am de la gendarmerie ak ñaari certificat médical moo yegg si waat mi day te Macky c'est un vrai fumier politique finis ce politique le finis Dengan ngeen F24 Macky génn le dialogue dialogue bini ñuy xaan-xaani kii day dem kii du dem kii day dem kii du dem Macky tey taxaw ne Diaz wan leen ne moom mu ngi déggante ak Khalifa Sall mu ngi déggante Diaz eh Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz kese ngeen gis gars Sonko dafa faut ci bi te dina ci Sonko na ci bi te ci qui <laughs> doit combattre le combat ça ne doit plus être un combat politique ça dépasse la politique ça dépasse la personne de Ousmane Sonko la jeunesse yenn jeune yenn la yenn a li que y a na ne moment bi le 16 Sonko de Wissi, les chambres chambre criminelle obligation la pour xam nga woon na dëkkee jëli Ziguinchor newoon na dëkkee jëli Ziguinchor ba déplacé pour yóbbu gars yi <laughs> bi ma laay fee ba pare ñu wooñu ne ñu non booy vérifié nañ foto bi mais daal photo bi wóoru daa mel ne mën leen déet am na vidéo bu wone oto yi di daw biir Gambie oto yi daw na biir Gambie leen renseignement gambien wax nañ leen ne jaar na fi wante taxawul mu ne ma njàkk sama ndey dinañ ko jàpp ma ne leen ba booba le huit bi wuy siwul mën a ko déet xaaral après cela laa laaj wuy waat ko mën a ko déet le huit am na droit bañ dem parce que foofu ay appel la mais le seize bi wuy bi le seize bi chambre criminelle la de bu wuy jee dañ koy daaj bu wuy jiwul comme liñ ko tàmm def seen kanam lañ koy defaat te bii paa biir këram lañ koy fekk wax naa leen ko l'état va passer à la vitesse supérieure qui Macky Sall est wax deug mo fi qui ko wax deug mo fi te deuk bi dafa Sénégal yeen jeunesse bi fa ngeen baña toujours doomu ñi am ñoy continuer di am doomu ñi ñak continuer di ñak man fofu la bëgg ngeen commencé xalaat doomu diiw bi ngeen ba doomu doomu Sénégal juge kay Mbaye 93 biñu rayé Babacar Seye ba paré xam ngeen lan moo tax Moustarchidine yi suñ Moustapha gina ma sédé dañu yek né ñeneen taxaw nañu pour jëlaat réew mi seen loxo parce que programmé won nañu juge Kéba Mbaye xam nga lu mu bañoon prononcé na Abdou Diouf gagné na gaay yi ko té xam nga juge Kéba Mbaye chaque dimanche mu Elisabeth Diouf ñoo gaan ñëw golf boobu golf Guédiawaye di def seen golf juge Keba mbay moom la ay doomam jàng si France mu jël Abdou Mbaye placé Abdou Mbaye banque Abdou Diouf jël def ci xaalis bu weex tàll pour relever CBAO mais du ñaqam Alsaan Jéeri Ndiaye moo relevé banque bi Alsaan Jéeri Ndiaye moo relevé CBAO pas Abdou Mbaye Abdou Mbaye papam moo ko poussé beneen frère am mu nekk Orange Sonatel la nekkoon juge yëpp Kéba Mbaye si boppam il était dans de sales affaires là la wax très sale ba naroon jël réew mi def transition parce que piégé nañ gars yi dóor nañ Babacar sey bal gars yi xam ne Ablaye Wade daw res seigne Cheikh Tidiane si reculer parce que xam nañ ne boobu bu ñu songoon Abdou Diouf rek yeneen force ñoo taxawoon pour jël réew mi pour wax leen histoire yu ñu ñoom Macky Sall di ñu jéem a andilaat te Macky Sall wax naa ba pare benn waaye ne ma non yow da ngay wax ba pare mel ni da nga xam Macky Sall ma ne ko du ma wax si Macky samay mbokk laay wax waa léegi nañ dem samay mbokk pour ma clôturer Macky fàttalikul <coughs> Marème Faye mi tey nal taar léegi Ablaye Wade toog na biir biiram génneel la fi ko Marème Faye Sall di del xërëmee génneel la sàcc yi ngay def yow Macky génneel la sa lépp lu ngay def Macky Sall convoqué nañ la benn yoon Alassane Ndoye jël si la ñu convoqué la deux fois troisième convocation boo wuy ji woon dik dañ lay tëj ndax détournement bi yaa ko def ndax lu ñaaw li Marème Faye Sall daan def yëpp nga dem Touba toog sëñ Baara jël téléphone am nga ne doo ñibbi Dakar nga toog ak sëñ Baara wax plus de une heure sëñ Baara wax ak Ablaye Wade plus de une heure de temps pour mu bàyyi mu sedd Ablaye Wade ne danga koy seet si bi ngay dem yaa ngi àndoon ak sa copain Ousmane Massek Ndiaye ak maître Madické Niang Ablaye Wade ñëw 10 h ci suba romb la dugg ci bureau bi faalew la wo Ousmane Massek ak Madické Niang waxtaan ak ñom yow Macky Sall Macky Sall fàttalikul dem bu la pa bi topone bi heure do nek président Ablaye Wade rombat la 14 h dem yonam yen gennon gen ben moment jël pause ñewat tok Ablaye Wade 19 h la la mu mujjee recevoir yow Macky wala tiiñal la ci biir bureau bi génn la foto yeeg yëpp teg ne la xoolal sa jabar lu muy def xoolal sa jabar lu muy def xoolal sa jabar lu muy def Ablaye Wade newoon na la jigéen bii boo ko moytuwul lu la nar a sànq ci këru àdduna jigéen bi moo lay sànq. Ablaye Wade waxoon na la ko yow Macky Sall nee na la boo naree yàqu la ci àdduna nar sànq la ci àdduna sa jabar ci moo la nar sànq ndax fu ne yóbbu na ma fa pour rey ma man ngeen di jéem a rey wante mënu leen si. ba kër yi muy dem biir Mali fépp di xon Ablaye Wade pour mu dee. lépp la Ablaye Wade woon Macky Sall pourtant jabar jooju yow sa bopp xam nga ne bëggoo ko Macky noo yow sa bopp xam nga ne gel bi bëggu la parce que fàttalikul bi nga njëkkee dem Diourbel stage nga doon def ko si ndax ingénieur nga bi nga njëkkee dem kër ga fekk fa grand Dieng moo fa boofoon Père Dieng moo doon doxaan Marème Faye war ko takk nga fekk ko fa bi nga ñëwee Marème Faye dala suufeel oyofel la sa deuxième ñëw nga ñëw mu génn bàyyi la fa yow kese si kër gi est-ce que Mansour Faye bii tey di sàcc suñuy milliards di ñu jaay réewan bi est-ce que moo jóg wax yow est que moo nekkoon sa xarit déedéet Ibrahima Faye Ibrahima fay moo defar Macky Sall loolu Sénégal xamul ñoom ñaar ñoo doon ànd Macky di fa ñëw chaque jour gel bi di ko fa bàyyi di dajjeeku di ànd ak grand a Ibrahima Faye moo mujjee dem ba nekk xaritu Macky Sall benn bakkan Marème Faye Sall nekk Diourbel gagné green card attendez maam américaine la ak ay doomam loterie américain yooyu la gagné mooy loterie américaine bi bi ñuy def senegal yéen ñëpp xam ngeen ko green card la Marème green card la gagné loterie jóge Diourbel dajjeeku dem États-Unis kër gi mu daloon tër jarul wax Macky Sall noonu la dajee ko ñaan disponibilité ci stage dem États-Unis boobu Ibrahima mu ngi fa. Ibrahima di ko jàpp ba affaire dëgg Macky bàyyi lépp États-Unis ñibbisi ndax dafa dëgëroon pour def integration ñëw dugg ci politique nag nekk ngeen di coggumaan ci politique. on passe l'éponge foofu ñu daw ci coggumaan bi Idrissa Seck pour leen mënul respecter kii. ñu bëri bi ñu njëkk gis mag Macky xam nga lu ñu ko gisee Idrissa Seck ñëwoon mission war recevoir nit ñi Macky Sall nekk si ginnaawam yor saag bi en 2002 boobu Idrissa Seck fii un demi-dieu c'était le demi Ablaye Wade Macky Sall moo doon yore saagam. ba yi il s'est demandé mais sa gars là ndax garde corps Idi la ndax yambaraayam ak mbuqaayam ñëpp ko fagoon garde corps Idi jour boobu la ko Idrissa Seck présenté étudiants yi xeeb ko. ma wax leen nag Macky Sall cogg maan la dafa cogg PDS ba am lu muy am Karim Wade convoqué na fi ay jeunes étudiants war leen recevoir en France booy toog deux heures de temps di ko xaar mu wàcc si hôtel bi di wuyu téléphone Macky Sall topp si am yor saagam boobu Macky ministre la de topp si ginnaaw Karim Wade boobu ministre la mais pour xeex Idrissa Seck pour won la lâcheté Karim Wade yor téléphone am Macky topp si ginnaawam yor saag di xuutar xuutari en tant que ministre de booy étudiants yi bëgg a ñëw daw wax ak Karim Wade Sall si boppam moo leen yuuxu eh eh un peu de respect vous ne voyez pas qu'il est au téléphone eh, Macky Sall si boppam. booy étudiants yi xaw a tiit toog dina am laajfër bu ci wax koo xam ne moom fekkee na ko ndax il était sur place xam naa dina fagoon ni yëguma lii moo taxoon je viens de comprendre pour lan waa ji contre Macky. bi Karim Wade pare wax ak ñoom ba pare présenté leen Macky Sall ba ne leen c'est le ministre de l'intérieur booy ils étaient comment un ministre de l'intérieur peut défendre quelqu'un qui n'a rien dans ce pays mu nek garde corps nek ci ginnaawam ko ñom Macky Sall tay ñoo def Karim Wade limu doon Macky bi Ousmane Massek Ndiaye dee lañu waxtaan suñu biir ben kilifa ñu problème am ñu nako lan mu ne kenn dootu ko wax ak mom mu dégg ki do nga doon wax ak mom mu dégg anecdote bi Macky jógee États-Unis ñëw toog affaire yi galère affaire yi dëgër si moom États-Unis mu ñëw fii cogg cogg cogg commencé di benn bennal ak ci société yu ndaw si la Marème ñibbisi Ibrahima Faye mii tey moo ci xare Badar ak ma Masseck Ndiaye ñoom ñoo dem takki Marème Ibrahima Faye mooy goro Macky direct Mansour Faye ci intérêt bi la ñëw Ibrahima Faye fi nekkoon avant dem États-Unis di ko jàppale su ba suba ngoon guddeeg bëccëg mosu ko bàyyi ginnaaw est ce Ibrahim ngeen Ibrahima Faye si politique bi il faut la merde comme les autres il n'a pas ça ci boppam la nekk marem saa bu bëgg daan tas dem yoonam ak a ñeme fay moo tax suñ ma naan mosul fay ay ree la may def booy ci famille laay wax nii de bu daan daajeeku Ousmane Masek Diaye Macky mosul wax ak marem lu ko naqari jamais de la vie bu lu ko neex wala daajeekoo góor ñoom Ousmane la koy dem wax ak Ibrahim Ibrahim moo ñëw saaga ndeyam ne di nga bi par force Ibrahima fay tey bu sëy bi doxee ba biir heure ba Marème Faye nekk tey première dame ginnaaw yàlla Ibrahima fay la lu ma xam lay wax waxantuwuma ko moo tax saay buñ ma naan gauche yaa ngi wax xamoo li ngay wax ay ree daf may jàpp je rigole maire Oumou moom am nga sens Israël mais combat bi ñaaw na ba pare gars yi dafa ñaaw ñoom fiñ ko defee dafa salté vous êtes dégueulasse non c'est sérieux gouvernement bi sont dégueulasses li ñuy jiñ ko ay viol ay crime non vous êtes dégueulasse vous êtes très très très très dégueulasse vous êtes dégueu yàllaa ngi suñu kanam barki sëñ Bamba mais xeex na gars nul ne peut combattre sans laisser des plumes te Sénégal amna lu fi xew te fakk ñu wax ko léegi politique amatul ay ñetti parti politique cinq ku leen ko wax fay fen da leen nax ñaari parti politique mo fi am waa jor wala wa chamagne te man suma sañoon ay gauche ak droite duñ ko wax nañu wax ngor ak goré jeex ñaari élu gëna maxi tuur yi gën a mag suñu wolof am na fa ngor am na fa gore am na fa léegi ñaari parti politique ñoo fa am ngor ak gore soit te avec maki soit te avec Sonko moo gën ñuy def mille parti politique gis nga nag genre politique bii nii buñ ko xasee def Macky Sall seggal ñu Macky mu ngi segg moment yi na Macky segg la maximum bu seggee la maximum ñooñ ñëpp bu Sonko faloo ñu raxas leen léegi beneen parti buy ñëw tam noonu lay demaatee ça sera droite ak gauche yooyu wóorul ay droite ay la gauche waa jàkkaarloo toog ci télé bi naan la Machiavel a di di màcc di dóol ñun waxuñu yooyu xam nga lu ñu wax di Sénégalais yi dégg ngor ak gore wala ndeyjoor ak càmmoñ il faut nationaliser ce pays man ay droite ak gauche Machiavel yooyu je ne crois pas man lu ma gëm maari fa mooy quelque chose de palpable quelque chose de visuel lu ngay xam lu nga dox lu nga ñam loolooy maarifa fa mooy taxaw dugal coup ba pare nanguñu dugal la ay coup ci fa la bokk mënoo di xeex ne damay dóor kenn du la dóor yaay kan mais je pète la gueule des gens on va péter ma gueule kooku mënuñu si dara waaw waaw mënuñu si dara day metti ba nga fat doo nelaw doo lekk doo naan boo ci jëlee garaat mais dara

maman yi waxtu dee woo lañ toll waxtu dee woo Pape Alé ni mu waxee tey dinañ ko convoqué bu leen sonn maman yi ku taxawatul deewoo doo gor bés bii bu jotee ku taxaw naan fi du calculer jox leen ñu stratégie yooyu waxoo ma dara joxewtu ma benn stratégie stratégie bi xam nga lan la région bu ñu mënti jëlee Ousmane Sonko Dakar la Macky Sall nekk niñ ko jëlee pale ba Sonko dóor na leen code nee naa leen en cas d'arrestation dinañ leen publier ben audio 2 minutes yep ngeen dégg baatu sonko wax code bi na leer tay nañ ko moy na Macky génn palais bi quel que soit le prix à payer après buñu régler on va régler après buñu paré on va régler notre pays gaay li fi ñaaw bari na de li fi salté bari na de am grade bari na 14 mois yi ay grade lañ 4 mois yi passé c'est des grades ñom nit dafa ak ñep am nañ ay grade ndax ñu ngi ci jeel bi ay papa la ñoy yep am nañ ay grade man sama genre grade cadavre ambu cadavre ambulant lañ ma def te xamuñu ne euh, xam naa ne man combattant laa du ma góor gu faible je ne suis pas un homme faible man duma yoo xam ne ay naa non kii laal nañu waajuram day wax laal nañ doomam day wax non dinaa mer deux premiers jours trois mais eh, billahi wallahi tallahi tey bu ñu suuloon sama doom tey tey tey ñu rendi ko xajit ñu suul ko tey tey tey suba mu ñëwaat live ndax man xeex daf may dundal dëgg rek a neex yàlla ñi ma xam-xam nañu loolu xeex daf may dundal daf may tax ma fàtte liñ ma def nekk ci concentré ci benn objectif est-ce que vous me comprenez moment may fokk yéen ñëpp tolloo niveau niveau bi mooy lan foog Sonko dem élection mu neex muy naqari day dem élection muy neex muy naqari avec ou sans condamnation neex naqari neex naqari day dem élection nemmeeku tur bi nag Tiwaawoon je regrette boo leen xuusoon ba si biir dinañ la ne sëriñ baa ko tere moo ne bu fi kenn dugg nemmeeku tur ndax sëriñ bi dafa jóge ci wopp bu leen fàtte loolu dafa faju ji woon xaw ma bëkk nekk yaa joxe ndigal boobu xaw ma mais daal Tiwaawoon loolu tax gaa yi arrêté nemmeeku tuuru Sonko bi keroog bi mu koy wax ne leen nemmeeku tuur bi dafay arrêté par force dama meroon moo tax dugguma ci détail yi mais waa kër gee ko arrêté. Maintenant, c'est à vous de juger soit on va se battre jusqu'au bout soit on laisse ces soi-disant politiciens qui ont compris isoler son Sonko l'éliminer après on va continuer avec le STEM... ñun sommes ñooy tànn fu mu toll ni ñaaw na ba noppi te foog mu gën a Nous rek Nul ne peut combattre sans y laisser des plumes. La désobéissance, la désobéissance civile est une lutte passive. La désobéissance civile moi combat vous ne pouvez pas ci combat c'est une lutte sans violence. tu appliques les règles sans violence tu es du wuy ji bu wuy ou dinenko, ko buñ ko jëli jee yenn nag foog ngeen dem boobu nag désobéissance total maanaam dem palais par force geni Macky Sall par force dugg ci palais bi par force Macky Sall wàcc par force mu jeex par force deewoo dafa jot xeex weesu nañ ko gatsa sa gat sa weesu nañ ko deewoo dafa jot deewoo dafa jot deewoo dafa wax jot balaa moo yéex bu yéexee ñun ñooy ñàkk gars yi bi foog mu gaaw foog mu rapide foog mu gaaw foog mu rapide gars yi di ngeen combattre de billahi dinañ combattre neex naqari on va loolu rek laa amoon lu may wax la ka Barthélemy ak Diaz yooyu nag wax naa ko ça fait deux mois delluy leen waat samay vidéo wala vidéo vingt 28 mars bi si Kayz Off ngeen delluwaat si vidéo boobu di ngeen comprendre lii fi xew yëpp man moo tax maak sama waa groupe toujours boo yaa ma naan grand bu retardé si affaire bi waxoon nga ko tel date rombal ce qui fait damay sal damay fal gauche bi di dem rek <laughs> maa maa ngi à gauche at falaat naa signal demaat naa comme dañu war a képp Sonko di si le 16 moo gère les gars incha allah.